ñu jukkiwaat leen rek ci xibaar yi bi la yoon nag dañuy àddu wax rek ci soxna si di Gabrielle Kane nekk ab boo xamante ne daal dafa daal di fexe rek defendre jigéen ñi nga xamante ne dañ leen a xam seen àq ak seen yelef bile yoon soxna si nag dafa àddu rek jëmale ci ki nga xam ne moom lay jàppale ji Adji Sarr wax ci ay moom ci ay euh, mbir yu doy waar jëmale ci wàllu mbir gu yaramam waaye tamit ci wàllu xelam buñ sukkandikoo ci Gabrielle Kane moom mii nga menace de mort ak sàkku moom nag dafa mel ni dafa am jafe-jafe ci wàllum xel ba mbir mi dóore ba tey jii nag kii di aji Sarr amul benn ndimbal lu jëmale ci wàllum psychologue koo xam ne daf ko war a saytu ci wàllum xel loole nag mu nekk loo xamante ne jamono jii soxla na ko bu ñu sukkandikoo ci Gabriel kan mi nga xamante ne moom la nekkal moom mi la sax moom moo ko daal de gunge ci lépp loo xamante ne mi ngi koy amal nee na nag jamono jii benn féministe boo xamante ne rek moo fi taxaw ngir jàppale ko moom moom bu Sénégal daal di daw ay responsabilité loolee nag état daf doon ragal rek ñu ne dafa dugal loxam ci mbirum dossier Adji Sarr ak Sonko waaye nag waroon na mën a jàppale rawatina ak famille famille bi nga xamante ne seen loxo jotu seen gannaaw ñoom nag mënuñ ko daal di jàppale a fàttali nag kii di Gabriel Kane di xam ne responsabilité yi njaboot ji nga xamante ne ñoo ŋànk Adji Sarr ak état bi war nañ daal di jël en charge lu jëmale ci wàllum pajum xelum Adji Sarr ndaxte bokk na na am na nag ak bu fekkente ne lu ni mel daan na ko am ba tax na sax Sénégal ñu bëri ah, soppatuñ ko bëggatuñu dégg turam wala sax fuñ koy séenee waaye nag bokk na ci sénégalais yi ndax fii la juddoo màgge fay war na am àq ak yelleef lépp lu jëmale ci sénégalais ci noonu nag mu ne moom mi sonn na te di ko jàppale te nag mi ngi daal di xam ne nag ne jamono ji ah, enregistrement audio yu mujj yi nga xamante ne nag kii di Adji Sarr daan na ko am wax ceeg ah, ñi nga xam ne rek mooy kilifa yi moo xam kilifa diine yi loolee nag lépp kii di xam ne nag ab problème bu sérieux la maanaam mental xel xel bi nga xam ne dafa feebar daal moo tax aji di délire di daal di wax kàddu yu nu mel ba tax na nag moom Gabriel Kane taxal temm di woo état ak ay mbokkam ñu gën ko jàppale ci wàllum pajum xel ndaxte ba mu jotee am ak problème bi ba tey jii aji dafa mel ne du am xel mi mbokk yi mu nekkoon kàddu yu duppee ci Gabriel kan ci gis-gisam ak nekkinu aji saar jamono ji nga xamante ne daal jàpp na ne dafa am feebaru xel te nag gisul kenn koo xam ne jàppale na ko donte sax jamono ji kenn ci Sénégal bëgg bëggatuñu ko rawatina nag ñu gis ko jaa ngeen jëf ci ànd beeg déglu bi ci kanam ñu indiwaat leen beneen xibaar